ku nekk ci ñun matee na kon yal na yàlla sàmmal ñu loolu yal nañ sax ci dëgg jëm ñu tënk yal nañ sax ci yërmandeem yéen ma gëm doon yërëm nit ñi jëriñ gëm daan jëriñ nit ñi yal nañ sax ci loolu yal nañu yàlla tënk ci ñu dimbale leen te lu am solo la parce que boo nekkee nit ñi loo am jox leen dalay tax nit ñi ñàkk sa waajoo ñàkk loo soxla mu ñëw kon ñu ñaanal bàyyi jël sa kase bi Ousmane maa ngi lay ndokkee yow parce que wax ji yëpp jàngale boobu moo ci am Euh, dégg nañ sa wax te loolu yëpp ñuy jàngal moo dégg rek yal na yàlla jàppale la ñu ngi ñaanalaat beneen yoon njabootu Baay-Jur bi tey fajar gi jot na te sikkarkat yi dañoo programmé woon minuit lañ programmé woon maanaam minuit bi léegi moo mel noonu lañ programmé woon mais dañoo bëggoon mu teel a commencé ndax am na sikkarkat yoo xam na nii bu bëggoon nañ ñu mos sikkar xaal yi gën a jokk waaye nag comme nag cër la nga xamante ne nii lii dañ ko war a fekkee si te suñ bopp lañ ñëw moo tax ñu tànn ne danañ ci barkeelu parce que yàgg nañ di dajee di def ru mel noonu boobu du ñu ñëpp nañ bàyyi loolu xel kurus yi nañ ko téyewaat góorgóorluwaat ci suñ doom yi góorgóorluwaat ci suñ itte yi góorgóorluwaat ci suñ bëgg yi suñ ko defee danañ àgg fi ñu jëm lu bëri mbalit la dañ koy jéggi jàll mbir mi faydu la faydu moo ñu itteel faydu moo ñu ñoom bàyyi lañ bëgg bàyyi moo ñu tax a bëgg ku ñuy bëgg te bàyyi moom yàlla dimbali nañu ba biñ ko bëggee feeñoo nañu fu ñu ko jëriñëwee maanaam ci masala bi ñu jëriñee moo ci masala bàyyi bi ñu tey te moom lañ feeñoo léegi boo xoolee moom lañ def wane ay feeñuwaayam te loolu yëpp dëgg la pourtant photo ba duñ ne ba mu ñëwee moo tax nañuy jàng loolu tamit na waaye doon suuf yàggee kooku tamit ak dund mooy soob su yàggee lu luñ def da leen di jàng suñ xasamoo sax dañ ciy jàng lu tax bu leen melentaan màkkee dañuy lijjanti lu tax melentaan bi wàcc lu tax bopp di ma métti lu tax biir bi di jam su ko yàggee foofu lañ la wax ñoom loolu la ñuy liggéey en réunion moom dal na ma bopp baa ngay métti xaaral ma uti perte naan ma amaana. moj soo moom doo am moom projet bi du ko la jënd day yóbbu bañ ci bëri. mooy sama bopp bi da doon toj ba ñaan ko yóbbu hôpital waaye subu yàgg lu mu def am na lu tax ma bëgg ñu xool liñ jëf tey jotaay bu nekk war na jàngale ma bëgg ñu xool liñ jëf tey xam ngeen ba ñuy indi luñ la indi du photo ba loolu ci ci arab xam nga moo tudd appareil photo photo boobu meloo rek lañ jël suwal meloo xoolal bañ indee photo bi ñun ñëpp suñu xol yaa d'accord ñëpp jóg taxaw ku ko fi defut nit moo ko def te pourtant kiñ bëgg rek lañ ko feeñal këyit jàmbur góor giñ bëgg lañ taqal ca këyit ga mu jaral ñu jóg pourtant këyit googu moo tolloog baay Makhtar meloo photo booba mooy lim Baye Doudou bi tey feeñee ci moom lu tax ñu yëkkati koo noonu ba wàggal këyit googu noonu suñu gisee Baye Makhtar duñ ko yëkkati koo ne mu ngoog meloo Baye Doudou ngoog ñu jox ko wàccuwaay boobu. والقمر قدرناه منازل حتى عاد a القديم لا شمس ينبغي كل الكوتي واتواي وير وير وي ak jant bi duñ benn de kii wàccuwaay lay am manazil dafa am lu ñuy tuddee manazil manazil dafa am wàccuwaay dafa am avion bi nga xam ne dafa naaw ci jaww ji bu wàccu nit ñi duñ wàcc fu wàcc aéroport la tudd bu wàccee aéroport nag oto yi taxaw ku bëgg a dem maanaam loolu jàngal la heure buñ toogee nañuy jàng ci melooy doxalin yi muy wane ñu mën di joxante cër ci melo yooyu parce que kenn ku nekk ci ñun melo baay bi boo gisee mu xaddam yu bëri avancé daayiru bay di jëm kanam dafa am benn benn organisation bu ñu am tey boo doxee ba fekkee mu xaddam ak baay Abdoulaye dañuy jëmmal ci dëkk sax Cheikh Abdoulaye ak ci nit comme mu xaddamu mu xaddam ba bu ne tël mbooloo mi war ko bu egsee mooy njëkk a mm-hmm. ah yow sa sëriñ bu sukkee da nga des waaye bi nga boo ñëwee di wane na fii ñun ñëpp ñoo xam amuñ de amuñ ku la ko wax wax ci yàlla de amuñ ku ne am na lu mu rawee moromam te boo ko soxlaa boo wàcc doo ci jot ba ma ñëwee gisoo bi ñu imaam fu ma ko fekk damay wàcc ni groupe ca suuf xam nga maa bëgg ku bëgg a wàcc robinet boo ci bëggee root da ngay root ca suuf kon nañuy jàng meloy sufiyanke yi sufiyanke yi looloo tax ñuy raw luñ bëgg a xam ci yàlla xam ko luñ bëgg a wax ci wax ko waaye booy tardé sa bopp ci li jënti nit ñi la muy defal la wax ak na mu koy daxalee ak na mu da ngay tardé moo wax naan sama duudu gi man sax du ma ko a ah, faalewu ma ko baleen nit ñi naan duudu duudu man maa dem looloo tax nañ góorgóorlu ci melo yooyu maa ngi koy dénk ñëpp parce que maa ngi wax ci buntam ndénkaane ma nit ci àndoor bi nga xam ne gis naa ne Baye Modou Kara insisté na lépp man xam naa ne liñ bëgg mooy ñëpp nekk benn liñ bëgg mooy ñu dooleel liñ am parce que kenn ku nekk ci ñun loolu la bëgg njabootu Baye Doudou gi ñu yëkkati leen dara jàll leen billaahi wallaahi taalaa su ma toogee ba gis sëriñ si seen doom yi ñu génne leen gàmm bi damay toog ñu indi doomu sëriñ mu ngay mën a kii doomu sëriñ bi la du sant sax man recevoir naa fa benn sëriñ doomi Baye ala euh, Ngodiba Ba ca recevoir naa ko ci juma Kadhafi ma ma recevoir ko dalal ko ma gis bi mu ñëwee nii cër bi ko jox ndax allah ba kii de pourtant sant ñu waaye bàyyam dafa liggéey ak bàyyi rek xoolal bi mu ñëwee ñëpp a ko jox cër orma dafay tax ñu respecté maanaam jox cër sa ci ronam du doyal boobu taalibe yi laay waxal bu leen moromante amul njëriñ moromante bi amul njëriñ. mel leen lu leen neex xas nag du ñàkk waaye am na koo xam ne yow yaa bëgg a jëriñoo dee nangu bu xattam bi boo dajeeg moom bu naan kii lii naan moo wax moo bul diggante la wax na dayoon naw xam nga loolu set soxla wax mooy mu azima li ali jamia laa sawal xaasatu kon ñu tiyax jeex na rek nga wàcc nag groupe jot la ngay jot te loolu ñett da ko ci am xam-xam ak koom-koom ak naataange moo tax suñ bëggee koom-koom lépp luñ bëgg ñu am ko na ormal suñ doomi sëriñ si nañuy ormal muqaddami bàyyi duudu bi tey yi du ma wax bi yii laa wax muqaddami bàyyi duudu bi yi nañ leen di ormal ñi bàyyi duudu bi tey dafa ak loxoom tudd leen ñu dégg ko mu seedeel leen gërëm leen boo leen bëggee yàq yaa yàq te doo leen parce que am nañ gërëmaa def moom lañ soxla woon ñu gërëm soxla moo tax nañ gërëm ñooñu di leen ñaanal ñu jëm kanam ndax njaboot gi ñun ñëpp ñu nekk benn yëkkati leen parce que njabootu bàyyi duudu bi tey buñ ci billaahi wala ibaam mi suñ amoon luñ bëgg ñëpp tekk man xam naa ci dara xam naa leen ñoom par benn benn barke baa jur bi de ku ci nekk xam naa la parce que dund naa ak yow kon mu ngi ñaan yàlla liñ mébét ci suñ xol yi ak li ngeen yéene maa ngi gis ñoom ñuy insister sax ba li ñu waroon a def ñun taalibe ñoom ñu summeeku di ko def loolu gàcce la gàcce la ci taalibe la nga war a def sa sëñ summeeku di ko def kon man tamit côté boobu rek laay insister pour ñun taalibe yi pour dara yàqu suñu buntu taalibe ñoom sëriñ la ñu nay taalibe rek taalibe moromam ñooy tebbante ñooy jëriñante ñooy bokk liggéey ñooy dem yóbbu sëriñ bi ñu ñaan kon yàlla ñu yàlla xiir ci liñ bëgg ak liñ gërëm kër bàyyi du bi tey gërëm yàlla bu ñu yëg suñu bopp man de maa ngi ñaan su ngeen di ñaan ñaanal leen ma loolu yàlla bu ma toog yëg sama bopp ci benn pepp boo xam ne yëg naa ne dara laa ci karam njaboot bi waaye nag yëg gëkk dëgg gi nag bu egg bu ma toog moom lamata do rek laa ci lu ma jëli jox leen wàccuwaay jox leen cër kon Diallo loolu ñu ngi la koy dénk te xam nañ ne yaa ngi ci ñu koy dénk ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ndax mu daal ñii ñu ngi fi ñoom ñi ñëpp ay jaami yàlla lañ te bàyyi a déglu gis kii toog rek gendarme la kon nag daraja yi dañ koy dàq bi may ñëw léegi man xam na affaire bi ñuy bi ñuy ñëw ci yoon bi dañoo réer mu gi may dawal di saaraan di dugg ci di dugg ci ñax yi rek ba tolloo ba ci yàgg ma taxaw laajte ñu wan ma ma teguwaat di dawal di dawal di ma ne xoolal rek yàlla maanaam ndeke boo bañee réer da ma ñëw ba ci appayage bi xoolal xam nga nu mu mooy fi ñuy fay junne boo amul carte. rapido. ñu ñëw ne sarax ca rapido ba. gi nga ndeke pays yàlla bi am na foo xam ne faya lay jàllale de sëriñ bi boo bëggee lu gaaw foog na ñuqi pour mu gaaw ñuqi dafa war taalibe bu mu jàpp ne laaj xaddiya doyadi la ñuqi da koy tax mu gaaw APR bi ku bañ a jox bàyyi duudu bi tey rek boo amee tax na doo embouteillage kon leen bu baax li may wax nii de ku bañ a embouteillage del fay péage bi jaareel ci péage bi dana tax boo paanee yow mi paan ñu war laa dépanne da ngay fayaale ñetti junne ngay fay fa nga paan ñu lonku la teg fële te lu tere oto yi daw dañ lay lonku ber la mel na fayal yow noo paanee di fay te jaar ci tali bi te da fay waaye ña nga xam ne dañoo tayal a fay jaralu leen dara xam nga fu ñu leen di yóbbu croisement Cambérène <laughs> camion yi di leen bloqué rek mooy lan coow yu bëri yi Cambérène Cambérène